yan din ak feeña yan din ak feeña yan din ak feeña bi ci biir àll bi am na pël bu fay sàmm ay gaynde ci gaynde yooyu moo jël ma ci ñaari karaw ñu indil ma ko ci tafa di mhm. ciy wuy njoxoy ne njoxoy ne jógal indil ma karawu gaynde bi ah, aleejo woni ƴetti fetel mum eyi ina abbe barottoya ina ɗi heeɓi waroy eyi yawat feere mbaɗa kattude bawal ma woto war hen hay ndiga aga def fexe mhm. ba gaynde yooyu noon mujjam mujjora e benn le 6 novembre ci arène nationale jàpp sa seen affiche point com di seetlu Moustapha Gueye ci plateau bi ak ñu ko dar ñu di wax lu leer naññ lu mel ni lañ set tey ci bët duma tey ñëw si miñ gàll ci loos duma tey ñëw gaynde gi sama kanam duma tey ñëw moo war dal ñaari mbir yi bi na la ñebee kon boog tëf. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax di leen ziare comme ni ngeen ko seetaanee ci Fallou Ndiaye ak Gaston ah Jamaïcain ba léegi rek mu wër ñi nga xamante ne ay nitam lañ ci làmb ji ñu ko tuddee dimanche 23 octobre fële ca Gambie mu war dox ci diggante Tafatine bu Gambie ak armée Jamaïcain mooy parrain bi yaakaar naa ni ñu waxee yóbbu <laughs> yóbbu matee ñibbi géej ah jam dama lay joxaat micro bi rek bàyyi la nga nuyu mbokk internet Ibrahima Diop. wax tamit relation bi ngeen am ak li waral nga àndal ko dara. Lamine maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax di la fay di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk internet yi ñu suivre ci luttetv.com yëpp tey nag suñu teewaay fii mooy li ñu daan def moom lañ ñu defal tey dañ doon tëgg bés di tuddee ay nit drapo di tëgg Sénégal di tëgg Gambie Gambie ñaari at yi tëgguñ fa làmb ay promoteur jóg muy waa Double R ji tëgg bés bu mag. ah liggéey bu rëy bu ñu rafet bi ñu def Gàmbi dañuy sargal delloo ñu njukkal. tuddee ñu drapeau boo xam ne mu nekk lu kawee si ñun. bu loon Sénégal nag promoteur yëpp dinañ ñu gunge ànd ak ñun waaye ñëpp xam nañ ne Gàmbi dafa sori te jamono ji léegi dafa xat waaye suñuy nawle suñuy xarit nga xam ne tey liñ naan askan boo ci teralee kenn teral nga ñëpp day jaadu ñu ñëw ànd ak ñoom ci bés bi ñëw drapeau bi ñu indil ñu jébbal leen ko wan leen ne ñoom am nañ si cër. jàpp naa ne lii képp kuy promoteur ci réew mi rawatina ngay sunu nit di sunu xarit sa drapeau la moo tax ñu ñëw tey indil ko koo xam ne kenn la ci ñun di sunu grand wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ci làmb ba tey ñu am relation yu benn tey xaj na moo ñu mag ci ay at li ñu nekk njëkkuñ ko ci waaye terewul xeebuñu ci day déglu sunu xalaat di ñu jox xalaatam kon bu ñu tuddee drapeau bi moom lañ ko tuddee bésam la looloo tax tey ñu ànd feeg yow ñëw seet si ko Euh, jébbal ko drapeau bi fa seen incha allah rabbi dimanche ak jàmm ñu ànd ak dem Gàmbi. salaamaaleykum Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk internet yëpp ak waa TV bi yëpp di la nuyu di nuyu Buzz di nuyu Jamaïcain suma rakk suma xarit di nuyu sama soxna ak samay doom maa ngi leen nuyu. di nuyu sama papa Serigne Mourtala am sëñ Modou Boussa Dieng ak sama yaay soxna bi Mbacke mu sëñ Dame Atte ak sëñ Fallou Mbacke doomam nuyu suma papa Pikine waa Kër Massar ñëpp maa ngi leen nuyu ak waa Pikine di nuyu sumay nijaay ak sumay rak di nuy waa axlu làmb yëpp di nuy nag sama rakku bopp muy jamaykee ma koy nuyuwaat bu baax a baax a baax te mu doon sama rakku bopp waa yëg-yëg bi ma am mooy lii dafa doon lu rëy ci man ndax li tax mu rëy loolu ci man tey mën naa ni dama nekk euh, en tant que promoteur boo xamante ne bokk naa ci ñu mujjee ñëw ci làmb ji mën naa ni sama première journée amagul sax at mu nekkoon le 9 janvier ci diggante Ndiaye Tine ak Baye Mandione Junior ci laa dugg si ci làmb comme en tant que promoteur kon tey Jamaïcain bu amee yëg-yëg bu toll nii ñu tuddee ko bés ma bokk ci ñu mujjee ñëw ci làmb ji comme en tant que promoteur mu ñëw fas yéene maa indi drapeau bi lii lu rëy rëy rëy ci man la lu rëy rëy ci rëy ci man la te mbégte la goo xamante ni mën nañ ko natt commencement bi mais mënuñu fii lay am mbégte bi mu doon koo xam ne nag suñu rakk ju baax a baax a baax a baax te may gis day sonn ci samay bés lool lool lool lool lool su ma organiser doo am jàmm doo am salaam mi ngi indi ay xalaatam mi ngi ci daw mi ngi sonn la preuve à nekk journée dimanche bi passé rek moo ci mujj bi combat yi amee ay dog-dog avant jox na ma ay xalaatam yoo xamante ni tey jii amaana su ma ko jëfa su ma ko jëfandikoo woon mënoon na bañ nii mais xam nga rek boo tënkee boo yoree ay xale da leen di bañ a tënk mais wax dëgg yàlla mu doon koo xamante ni daal xeebulu ma sama bés xeebulu sama soxla kon moom duñ ko xeebal daraam tey bu fi indi woon muus sax muus boobu dañ ko koy teel ndax moom moo liggéey loolu ci ñun te yaakaar naa ne liggéey na ko ci làmb te sekk na ko promoteur yëpp nag yëpp yëpp sekk naa ñëpp jàmm waaw dëgg yàlla loolu bég nañ ci loolu daal. waaw waa Gambie lii ñu ko defal nii wax dëgg yàlla lu rëy la dañoo delloo dañoo delloo buum ca mboy mboy ga ndax ki ñu ko delloo seen doom la ndax li tax seen doom la mooy dafa am cër Sénégal am cër Gambie kon tey bu ñuy wax promoteur international. moom la ñuy wax ndax tey ji day dem Sénégal di fi tëgg làmb di dem Gambie di fa tëgg làmb di jël ay mburu Gambie di leen indi fii di leen tëgg kon kooku Gambie bu ñu ko delloowee njukkal dafa doon lu war tey ji njukkal bi ñu ko delloo nag lu war a war la ñuy ñuy lancer appel population Gambie yëpp lu ko commencé ci eh, frontière bi nañu ñëw gàttandu ko teel ko tag tatagal ko te xam ne dina ànd ak ñu mu war a àndal ñu ñëw fa bégal waa Gambie jamaïcain yi bëggal leen saafonteeg ñoom ñu ci lancé appel tamit ñi nga xamante ne mooy seen ministre de sports foofu ak seen ministre de la culture tey bés boobu dafa moom te ne jeunesse bi ñoo ko moom bésu fête la bésu jeunesse bi la yoon la ñu ñëw accompagner jamaïcain ànd ak moom jàppale promoteur tam bi ko tëgg tëgg làmb ji ndax tey ji ñoom la ñu am ñoo ngi koy delloowaat ci seen jeunesse tey yóbbuwuñ ko fenn mënoon nañoo dem jëli ay gaal wala ñu dem dugal ko ci leneen mais defuñu ko dañ ko delloowaat ci jeunesse bi foofu ba pare ki ñu koy jox tamit ki ñu ko tuddee bés bi mu ñëw yàgg promouvoir bëre Gàmbi kon kooku dafay dafay dafay rafet dafay jekk dafay yelloo ministre des sports ba ak ministre de la culture ba génn ci bés boobu am taxawaay buñ ci taxawee boo xam ne bu mucc ayib la ba pourquoi pas sax jamaïcain war a mën a jël mbër yu mag yi nekk fii ñu si mel ni ay Modou ay Ama Baldé ay Eumeu Sène ay Balla Gaye ay Tapha yóbbu la leen foofu bërale leen foofu yóbbu leen foofu ñu bëre foofu te yooyu yëpp pourquoi pas lu war mën a nekk la ndax am na capacité bi am na xel bi am na idée bi lépp mu ngi fi kon nañ ko jàppale jàppale promoteur bi tëgg làmb boobu ñu leen di lancer appel ci loolu daal. comme ni ma ko laajee Fallou rek ku ñu dem seeti dinaa la laaj ci actualité làmb muy 16h bi nga xamante ne tey CNG wax nañ ni moom la ñu démarré combat Ibrahima Diop en tant que Ibrahima Diop Kajoor production ah ñu lay xaar ci ay bés yu mag a mag a mag surtout le 5 février 16h boobu CNG décidé ban gis-gis nga ci am. Ah, loolu boo ma ci laajee tontu ci dina yomb tey su ma nee dinaa ci ànd damay nekk naa fekk te bugguma nekk naa fekk te duma ko doon parce que dëgg la yàlla bëgg ku leen xoolan kaana tey mënoo ñëw. tey promoteur ñoom ñooy patron wu làmb ji quoi qu'on dise lu mën a xew ak lu mën a am promoteur bu amul CNG du am promoteur bu amul ay Lutte TV yëpp dara du am kon respect bi njëkk ci làmb kiñ ñu ko war a njëkk a jox mooy promoteur tey ni ñu leen di joxee respect lenn bokk promoteur bu làmbam doxee dina fay bu làmbam doxul dina fay fay nañ ko balaa muy tëgg sax day yóbbu reliquat yi bu yóbbu reliquat du tëgg kon tey jii kooku dafa war a am loo xamante ne tey moom lañ ko war a mën a protéger. li ñu war a mën a protéger mooy lan jamono dafa metti li tax jamono dafa metti mooy imagine toi ki dëkk ba Tëngéej war a ñëw arène nationale ku ne xam ne ni dëkk bi léegi dafa metti boo ñëwee yaa ngi xool nooy dawee dépense bi noo koy lijjantee pour togg am na ñoo xamante ne ay quinze heures la ñuy añ seen kër yi surtout dimanche añu 15 heures léegi imagine toi nga añ 15 heures nga ñëw bëgg sangu noppalu xam nga doo añ rek sangu parce que sur le plan médical docteur yi dañ koy tere. di nga toog dallu ba sax añ wàcc tuuti nga dem sangu boo mënee naan sa benn lawal naan sa lawal dox ndànk ñu war a ñëw arène nationale. léegi diggante jàmm gën fora diggante boobu embouteillage bi am fa ba poste caaro yi <laughs> kenn du ko mën a contrôler amaana balaa ngay àgg làmb ja sax mbër bala taxoon a jóg boo demee nga fekk nga fekk mu bëre ba pare lekkook soo waroon dugg doo dugg da ngay mujj obligé waat jëlaat sa oto dem ñibbi. léegi kan moo perte promoteur bi moo perte mais mbër bi bëre buñ ko que ça ñu daan ko que ça mu daan mooy mbëram bëgg fa yóbbu woon moom bu maa di jotee day dem CNG fayeeku ji xaalisam kon man d'accord ma ci point boobu. beneen question am na solo léegi beneen question bi mooy euh, foog nga ànd ay leeral parce que combat Gris Bordeaux Ama Baldé gis nañ ni régularisé nañ ko CNG léegi c'est officiel lan moo tax la régularisé bi. loolu nga andiwaat ci ay leeral régulariser nga ko ak ñaari manager gis nañ tamit loolu image yi foog ñu wane ko xaalis liquide nga fa nga fa génnee bi ngay joxe avance nga nga ñëw indi ay leeral ci loolu daal parce que tamit yëgg nañ ni combat bi régulariser ko image yi ñu ko doon régulariser danañ ko tegaale pour illustrer ko yow nga indi ci ay leeral. waaw loolu dañuy sant yàlla parce que combat bi ñu koy taxawal ñoo ngi ko taxawal le 16 CNG jox naa njàmbe ak ñaari ménager yi ku ci nekk liñ la war a jox ñu jox ko ñu jox leen ko ñoom ñu yóbbu seeni avance ñu jël date pour le 5 février ku ne xam ne ni balaa ngay jël jël date da ngay bàyyi caution te booy bàyyi cotion da nga bàyyi licence su ñaari mbër yi waaw li waral taxawal CNG bi mooy tey dañu am ñoo xam ne tey dañoo nekk dañuy dañuy nekk suñuy conseil dañu nekk suñuy conseil ñu leen di laaj ku nekk dafa xam dafa am nu làmb di doxee ak nu làmb baaxoo milieu bi ñu nekk dafa xaw a sant njaay boo nekkee ci milieu bu xaw a sant njaay nag léeg da ngay am noo xamante ni noonu ngay taxawee noonu ngay doxee taxawaay bi mooy tey bokk na ci lépp loo ci def dafa war a doon lu leer ak lu wóor pour nga mën a sàmm sa alal ndax foofu million la te ay million ku la koy yombalal mi ngi lay dugal ci caaxaan ay millions yu yombul tey fi ñu koy liggéeyee mënoon nañ ko dugal ci leneen lu bokkul ak ci làmb kon tey ko amee di ko dugal ci làmb tey ñi nekk ci làmb ñooñu waroon njëkk a ñooñu waroon njëkk jàppale pour dañ ñëw pour yokk mais ñoom ñooy wëlbatikuwaat di jéem a gor say xool nu ñu lay xool nu lay yàqalee xool nu lay dugalee ci kàmb léegi loolu bokk na ci li ñu dem taxawalee ko foofu. bon bi ñu ko taxawalee foofu nag bi saison bi tijjee bon dégg nañ ci lu nekk dégg nañ ci ay yenn interview ay combat bi wow est-ce que dina am ci février bi est-ce que bi valable na est-ce que est-ce que combat bi régularisé nañ ko yooyu yëpp dégg nañ ko mais ñun loolu intéressé ñu ñun li ñu intéressé mooy dañu nekk ci suñu yoon di dox di dem dañuy wax lu tuuti jëf lu bëri. bañ ay det parce que duñu dox ci ay détails xamuñu détails parce que kenn yaruñu ci. te suñu liggéey mayuñu ko ci milieu bi ñuy yëngu di ci liggéey muy suñu milieu professionnel bi ñu nekk muy wàllu mm, promoteur immobilier bi ñu nekk duñ ci duñ dox sax ci ay détails gi kon duñ ñëw ba ci làmb di dugg ci ay détails comme xam nañu li ñu yoon may ak li ñu war a def chaque jour dañuy bëgg a nekk en règle boobu ëllëgee duñu tooñ bokk nag li tax ñu dem régulariser ko boobu bu ëllëgee bu ñu soxlaa ñaari mbër yi war mën a def face à face ñu jaar fi si suñu nawle yi di jaar moo tax ñu def ko. waaw Kajoor Production fas yéene see liggéey liggéey bu mucc ay boo xamante ni dina am ay innovation yu bëri nañ ko ci xaar parce que bés bi dafa doon bés bu mag ñu tuddee ko nit ku màgg tuddee ko ku mag mu am loo xam ne tamit da ko def ci réew mi am taxawaay boo xam ne ko taxawee ci réew mi ndax dafa créer ay emploi ndax li tax ma la dafa créer emploi tey am na ñoo xamante ni dafa leen tëggoon tëggoon seeni papa la tëggoon tëgg ay doom ba tey ñooñu ci wërsëg bi ko yàlla jox ci la ñu mën a si ci la ñu jot seen wërsëg ba mën a taxawal ay kër mën a takk ay soxna yóbbu seeni waajur màkka kon ku mel noonu bu créer nit yu mel noonu mën nañu dafa créer ay millionnaires parce que <laughs> mbëri quoi qu'on dise ñi ñuy wax ay VIP man lañ leen considéré comme ay millionnaires ndax boo xoolee li ñu fi récolté ci ay millions kon dafa créé ay millionnaire nit ku mel noonu bu nekkee ci réew dafay laaj ñu sargal ko maanaam wane yoonam ñu xam ne kii lii dafa daf ko def ñu jaajëfal ko ñu suñu père Gaston te loolu dafa doon lu logique ni mu ma waree noonu la waree keneen te niñ ko ko defalee tamit suba nañ ko xaar ci Pape Abdou Fall nañ ko xaar ci Jamaïcain nañ ko xaar ci Fallou Ndiaye nañ ko xaar ci Abdoulaat Ndiaye nañ ko xaar ci Kanji production nañ ko xaar képp ku nekk ci monde làmb parce que ñun ci ay valeur la ñuy xool ci ay valeur la ñuy dox même pas ci ay Aziz Baye ñoom ñëpp nañ ko xaar ci ñoom parce que ñun li ñuy intéresse mooy valeur yi la ñuy xool xool nit ki li mu def ñu ñëw parce que loolu mooy encourager lu baax pour ki nga xamante ni bëgg na am lu mel noonu suba mu gën a yokk boppam suba lu mu nekk mu gëm ne ëllëg mën na ci am loo xamante ni nit ñi dinañ ko ko dara jaalee te loolu daf fiy des histoire lay doon bokk na ci li tax ñu defal ko loolu bi ci topp ku si mel du jànjee ko muy président des amateurs ku ne gis na taxawaay bi mu am ci làmb moom la ñu tuddee drapeau double moteur Mama Lamine ci jour boobu parce que journée de gala lañ koy def armée mbay guy gi ñu def ko deuxième édition drapeau Birasène bu CNG parce que li tax ñu def ko ku nekk xam na ni tey boo ko soxlaa jafewul ay buntam du ko tëjal kenn dina toog dina déglu tey loolu ay jéego la yu mu def dañ ko koy nangul. bu ma d'accord la moom dama koy parce que li ñaan nit sa waxi daaw dafa war a sa waxi ren sa jëfi daaw dafa war méngook méngoog sa jëfi ren daaw jox nañ ko drapeau ren tamit dañ koy defaat beneen drapeau muy armée beneen bi ci topp dinañ ci sargal suñu benn papa ndax lu mu liggéey ci monde audiovisuel tey ñun jeunesse Sénégal laaj na ñu sargal ko ci ndax maa ngi dégg ñu ne bi muy ñëw dakaar benn appareil photo la yor ak juróomi téeméer gàddu saagam ba tey mu mën a créer ay emploi yu bëree bëree bëree bëree bëree kon laaj na kooku tam bés boobu ñu décorer ko si delloo ko njukkal mi suñu papa El Hadj Ndiaye bu 2STV ñuy wax ñëpp nag nañu préparer bientôt diggante face to face Ama Baldé Gris Bordeaux Mbaye Guy gi Armé double moteur Mama Lamine du yàgg dara ñoo ñoom ci waxtaan yi ñu xaar ko te ñu xam ne nag combat bi pay-per-view lay daw nañ nit ñi bàyyi xel loolu bu baax a baax ndax bés bu mag la bés bu ku bés bu mag nag nit ku mag lañ koy tuddee loolu daal moo moom moo ci nekk. maa gën a kontaan la bi. yaan mbin ab feeña yaan mbin ab feeña yaan mbin ci biir àll bi am na pël bu koy sàmm ay gaynde ci gaynde yooyu moo jël ma ci ñaari karaw ñu indil ma si tafa mhm. si sii daam i wili ne wuyu njoxoy ne njoxoy ne jógal nga indil ma ko ɓaleejo eyi woni ƴetti fetel mum eyi ina abbe barottoya ina ɗi heɓi waroy eyi yawat feere mbaɗa kattude bawal ma woto war hen hay ndiga aga def fexe mhm. ba gaynde yoy noon mujjam Curay benn le 6 novembre ci arène nationale jàpp sa seen affiche com di seer Moustapha Guèye ci plateau bi ak ñi ko dar ñu di wax lu leer nañ lu mel ni midi. lañ set te ci bët duma tey ñëw si miñ gàll ci loos duma tey ñëw gaynde gi sama kanam duma tey ñëw moo war a dal ñaari mbir yi ginnaaw bi ñu la ñebee kon boog tëf.